di siyaare bu baax eh, ci weeru tedd wi di jiite ci siyaare bi Cheikh Mouhamadul Mountakha eh, di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu yéene ci liggéey suñ Touba mu def ni ñu ko baaxoo ñu ngi ci jumaay Touba toog ak daayira bi nekk Côte d'Ivoire ñu suñ maam suñ Abdou loo ñëw fi ànd ak ay kilifa ñu nuyu mbokki Côte d'Ivoire te di leen jaajëfal ci weesu yëpp di rafetlu doxin wi te di leen ñaanal ci bàkk tubaa Tuubaa Sëñ Tuubaa yokk leen xam naa la des ci liggéey ba dañuy jox sëñ bi rek mu jotlu ko waaye ñu ngi seer baax sëñ ma ko mbacaam ma nga xam ne mooy jëwriñ Sëriñ Tuubaa foofa te bu ñu ko tuddee tudd nañ kilifa yi nekk ci Côte d'Ivoire yëpp ak jëwriñ yépp kon sëñ bisimilah bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh Euh, mbokki jullit yi mbokki taalib yi euh, ñu ngi leen di nuyu lu bari euh, di leen siyaar di ñëw rek di leen fàttali ne ñu ngi fii ci studio Jumaay Touba ànd fi ak kilifa yi nga xam ne si ne ñoo ngànk liggéey daayirul muqaddamatul xidma Euh, bu ñu ci tuddee sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno ak sëriñ Abdou Lahad Bousso maam ci asta euh, tudd sëriñ Abdou bu Bousso Mokhtar ak sëriñ Matar Kane ak sëriñ Jili ñoom ñi nga xam ne si ñoo nekk ci studio bi ñu àggaleel ñu ko ci mboolem euh, kilifa yi nga xam ne si ne ñu ngi ci biir daarul Muxaddamatul Xidma yëpp ci biir loolu tam ñu jël suñu nuyoo ak siyaar yëpp rek teg ci loxol sëriñ Assane Diop bu Espagne bi nga xam ne si ne moom nga ngi diaspora bi yëpp Euh, mu àggale ñu ko ci mboolem pour daayira daayira mu xaddamaatu mu nekk ci adduna bi euh, ñu ngi leen di siyaar bu baax euh, di leen wax ne tey jii itam am nañ kontante bu baax bi ñëwee tey jii indi si sunu siyaar ci turu Côte gi yëpp ànd ak sunu jëwriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall muy ki nga xam ne moo représenté mboolem ndaw yi nekk ci Touba Abidjan yëpp rawatina ci Adjamé ànd it ak sëriñ Moussa Diouf moom itam mu jógee Abidjan e, ñëw ci e, liggéey bi e, ñoom ñëpp tam ngir fas yéene ànd ak ñun waaye ci naka noonu tam ci liñ jël sunu siyaar ñun ñëpp teg ci loxol jëwriñ bi nga xam ne si ne moo toogal Seexul Xadim ci Abidjan muy sëriñ ma Gumba Thiam buñ ko ci jiitalee rek ci Serigne la Diop bi nga xam ne si moo nekk ci Touba Yamoussoukro euh, danañ mën a yóbbaale mbooleem jëwrin yi nga xam ne si ne ñu ngi ci biir Touba Yamous euh, Touba Côte d'Ivoire gi yëpp euh, di am contentement bu baax di wax mboolem mbokk yi nga xam ne si ne yàlla dogaloon na ñu woowoon leen leen dañoo amoon it yéene ñëw e, kenn ku ci nekk ñu taxaw ci sa kanam xamal la ne li nga xam ne si ne mooy ndogu yi jëm si ci jumaa ji e, jot na e, ngir ñu jàpp ci liggéey bi waaye yàlla dogal na mu fekk ñu fii Sénégal waaye bañ jokkoo ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk def nga ci loo man ak loo mënut ba yàlla dogal na addi jooju indi nañ ko tey teg ko ci loxol Serigne Afia Boussa al imam and ak Serigne Mouhamadou Moustapha Fall ak Serigne Moussa Diouf comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee waaye fekk si mboolem kilifa yi nga xam ne si ne ñoo ngank li daayirul muxaddamaatul xidma bi Euh, ci biir loolu tam ñi ngi woote mboole mbokk yi nga xam ne si ne ñi ngi ci Touba Côte d'Ivoire gi yëpp euh, ngir ñu ñëw euh, gën a jàpp ci li nga xam ne si ne mooy liggéey daayirul muqaddamatul xidma comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxoon ci jamonoy màggal gi ci kër Serigne Afia Boussa al imam noonu lañ koy fàttali dañoo bëgg jël lépp teg ci loxol sëriñ ma gumba Thiam ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne si ne ñi ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp waaye tam ñu ànd ci ak sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall bii nga xam ne si moom moo jiite ndaw ñi nga xam ne si ne ñi ngi ci euh, Touba euh, Abidjan gi yëpp euh, bu ko defee ñu bëgg def benn fédération boo xam ne si ne benn daayira lay doon nga xam ne lépp ci turu daayira mu xaddamaatul xidma ci lay tënku ci biir loolu danañ fàttali it mbokk yi nga xam ne si ne ngi ci diwaanu Yamoussoukro yëpp itam Euh, ñu jàpp ci liggéey bi ñu ànd euh, laxasu ci gannaaw sëriñ Balla Diop bi nga xam ne si ne moom mooy jëwriñ euh, moom itam mu laxasu ci gannaaw sëriñ Magumba Thiam bi nga xam ne si ne moom mooy jëwriñ ci Touba Côte gi yëpp boo ko defee ñu bokk euh, takku nekk wenn say ànd liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul euh, ci li nga xam ne si ne mooy liggéey jumaa ji euh, ñu leen ko waxee woon toujours depuis 2018 ba léegi loolu lañ leen di fàttali li nga xam ne mooy daaru xet Xidma bokk na ci ay yëngatoom lu ci ëpp ci loo xam ne si ne danañ jóg taxaw ci mbooloo mi ngir laaj addi yoo xam ne si ne lu jëm ci liggéey bi la euh, bokk na ci màggalu Touba ak li nga xam ne si mooy sëxru Ramadan ak li nga xam ne si ne mooy laylatul mawlid nabi loolu lañ leen ci mën a tënkal ci loo xam ne si bokk na ci li nga xam ne si ne jotee faaw fépp fu ab membre nekk euh, wala képp koo xam ne si ne ab taalibe nga daaru Muxaddamatul Xidma euh, dana gën a jokko tàllal ay loxoom ngir fàttali li nga xam ne si mooy liggéey yooyu pour ñu bañ a guddal euh, dañuy jox suñu jëwriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall euh, bu ko defee moom mu leeral li nga xam ne si moo des ci kàddu yi incha allah. aùzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan ñu di nuyu di leen siyaare di siyaare waa Touba Côte gépp rek euh, daanaka kàddu yi ni ko sëñ Touba waxee. Euh, matale lépp waaye noo ngi siyaar ñi nga xam ne ñoo bokk jataay bi fii ci ci jumaay Tuubaa ji ñoo ànd liggéey bi xanaa dem man li may fi may soññ rek mooy di soññ mbooleem waa fédération euh, nooru daare ni nga xam ne moo nekk Côte d'Ivoire te jëwriñ yëpp ànd ko te muy lu lu ñu sos ñu ngi ciy soññ nag ne liggéey bi noo ko ànd waaye dafa mel nañ koo bàyyi woon ci loxo sëñ Tuubaa ak sëñ Sadikh Kan mi nga xam ne moo nekk tres Treichville ñu nekk ci liggéey boobu waaye ñu toll nii day tolluwaat ñu àndaat liggéey bi fa fas ne ko euh, soññe mboolem daayira yi nga xam ne moo nekk Touba Côte d'Ivoire gépp kenn ku nekk di jëwriñ na ko ku ko représenté koo xam ne dafay nekkal Moukhaddamatoul Khidma ñoo jokkoo ànd liggéey bi ndax nun kat ñi nga xam ne ñoo nekk Touba fii kat liggéey bi ku fi ñëw di nga soññaat sa bopp kon nag liggéey la boo xam ne bi liggéeyal suñ tubaa dong la te it moom rek moo fi des kon nag noo ngi ciy mbooleem taalu bi yi Touba Côte gépp Eh, jëwriñ sëñ Makumba Thiam ak jëwriñ yi mu àndal sëñ Baara Fall ak eh, sëñ Modou Thiam ak eh, sëñ Ibrahima Ndiaye ak waa Touba Bassam ñëpp rek ñoo ngi leen di soñ ci liggéey bi di ñaan yàlla nañ ci am ndam loo xam ne kenn mësu ko am barke borom Touba ñoo ngi leen di sant di leen gërëm fii la ñuy jokkoo ci jumaa ji ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal kenn ku ne fa nga nekk yàlla na fa sëñ Touba fekk faj sa aaju barke sëñ Mountakha asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Touba Lo kaddu yi rafet na jërëjëf sëriñ Moustapha kaddu yi rafet na ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci turu sëriñ Afia bu sa imaam mi nga xam ne moo jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu teew fii ginnaaw bu ñu jógee ci moom ci jotaay bi toog fi kilifay daayira bi ndax ab sëñ Abdoulaye Bousso Moutalib mi nga xam ne mooy secrétaire national sëriñ Afia mi ngi nii toog sëriñ Muxtaar Kan mi nga xam ne moo communication mi ngi nii toog sëñ Abdoulaye Bousso Thierno mi nga xam ne moo jiite culture waaye bokk ci commission sociale relation extérieure di ci liggéey liggéey bu rafet ngi nii ci jotaay bi toog kon ak sëñ Jiri Bousso mi nga xam ne moo yor wàllu euh, site bi moom ñu ngi ci jataay bi kon ñu ngi leen di jottali ay cant ak i ngërëm ak i ñaan yàlla sunu borom boolu ñu jàppalee ci baak Seexul Xadim ñu ngi leen xamal ne daal daayira Muxaddamatul Xidma bàyyi nañ leen xel bu baax di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ànd ak yéen liggéey bi di leen jaajëfal bu baax di leen soññ ci li ci kanam ci ñoom ñëpp ñu fas yéene xam ne fii fu daayira Sëriñ Tuubaa nekk ci dëkk da ngaa war a xam ne la fay daayira Muxaddamatul Xidma kuréelu kër Sëriñ Tuubaa yi daayira Sëriñ Tuubaa yi ñoo ko war a teyel seen bopp tasaara ko ñoom ñëpp ñu jàpp ci ni ñuy jàpp ci daayira sëriñ Tuubaa yi ndax jumaa ji jumaa yi ñëpp la sëriñ bi sëriñ ñëpp la daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa yaatal ay buntam kenn ku daayira ba mën a bokk amaan nga wàll ci daayira Moukhaddamatoul Khidma kon nag ñi ngi loxo ñëpp ñi ñëw ñi ngi leen di jaajëfal ñi ñëwagul ñi ngi leen di soññ ñi ngi ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa